lay ca Touba Mbacke ak màggal ga ñu fa dëgmal jàpp ko kon niki dibéer gile Touba nekk sele bi kulu murit jamono jile la ko jiitu son excellence président Macky Sall doore ko démb ba tey jile wéy di fa amal ak ngan yéenekaay yépp daal dinañ cey àddu ak nekk sang bu tedd ba sëriñ Muntaxa Basiru Mbacke dalale naki démb ci kër mag moom doore ko Le Soleil yéenekaay doore ko Le Soleil yéenekaay ak kàddu xalif général des mourides sëriñ Muntaxa Basiru Mbacke mu ñu dëgtal ci xatam bu bu tedd kaddu di ko xamal ne denk nañu la Serigne Touba Mbacke si saa si la njiit réew mi am mbégte lool dal di jaayanteek moom ngir lu joxaat gëdd ak war ma dëkk bu sell ba di Touba Mbacke jëm ci jëmal fa ay liggéey yu am solo la ci jiitu di ab université islamique salo lépp lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di njàngalem diine fekk na laas yéen kaay gis ne donte na màggalu ko Touba jëm waaye moo di ci wàllu ko diine ak fàttaliku liggéey yëpp Cheikh Ahmad Bamba Mbacke Khadim Rasoul kii di président Macky Sall moom lakk ci yitteel lii mooy naka lay def ba am ñaareelu sumb ci njombaxtaluk nguur gi taxit journal bi ci xatamu njàkk dal di si amalap a gis ne son excellence président Macky Sall kay démb daw raw sax ab ndongab daara bi gàddu potop yalwaanam buy sàkku sarax jëm ci naka lay def ba askan wi amaat kóolute ci moom tegaat ko ci njombaxtaluk nguur gi lu soxal màggaluk Tuuba ba tey te jëmuwaay bi doon benn ci dëkk bu sell ba l'observateur moo ci xëy yittiwu ak ëpp gëstu bu yaatu jëmale ci jëmm ju tedd ji nekk tey ci bopp yoonu murit yéen kaay gi tënk dund ak liggéeyu sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke di xam le ne jëmm ju tedd joojee boo doon dëxëñ li ko ñor ci àdduna ci ñaar képp lay tënku mooy jëm waay ak wàllu ngëm te lu ci nekk wane na ci takkuteef ak pasteef bu mat sëkk Tuubaa Mbàkke ba tey ak lu ñeel wàllu màggal gi Vox Populi jagleel na ko aw xat wu yaatu dikkaat ci matuwaay yi nga xamante ne jël nañ ko ngir xew bi lépp jaar ci yoon dëppoo ko tamit lay worma ak teggini dëkk bu sell ba di Touba Mbacke taxit yéene kaay gi ne màggalug ren gi nag dana wuute lool yi romb ci wàllu ko coppeeku ngir moytu di wone ay mbóosóor jaare ko ci ay nataal ak wàllum réseaux sociaux yi di faral di wone ay doxalin yu xajam lool te dëppoo lëkk benn yoon njàngaley maam boroom Touba tax yéeni kaay gi ne Touba kay ab fatwa dëggantaan la amal ci màggaluk ren gile rawatina fa tolloog bayaalub jumaa ju mag ji ak lépp lu ko wër moo xam koo mënti doon mayul la nga jëfandikoo sa wàllu ko téléphone di fa filmer ka nataalu ba mu yegg ci réseaux sociaux yi ana moo bëgg xajamal jàmm ji ci réewum Sénégal yàgg dox ci diggante jullit yi wàllu tàggat yaram jongante bi nar a ci diggante réewum Sénégal ak Guinée moom la ñuy stade yéen i kaay xëy dégtal di ñu xamal ne tey jëlee sélectionneur national bi di Aliou Cissé dina siiwal li mu gaynde bi war a bokk ci jongante bi journal stade ne gaynde yu dogoon nañu bile yoon ngir jiitu ci poule A ci wàllu qualification ñeel kan 2019. Assane Top jërëjëf Dakar